jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy suñu yitte CCB nag du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku nee ngi ci ñu ngi nuyu bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax a baax waa Jamra ak ñii di aar jikko yi ak waa Safinatoul amaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel waaye di ndokkeel bu baax a baax suñu mbokki bopp ya nekk bitim réew faatu faatu ya ak moodu moodu ya ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen ndam ak i xéewal di soññaat gouvernement bi mu jàppale leen seenu nekkin ba mu mën a ñoŋ naka noonu baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi du ñu leen fàtte waaye kenn ku nekk fa nga nekk di liggéey président Macky Sall fekkal kenn ku nekk fa mu nekk di liggéey nga dooleel ko jàppale ko ci la muy liggéey mu mën caa am ndam loolu mooy créer xëyum ndaw ñi sooy bu nag émission bu mag bi di seen xalaat ki leen siy gunge di bitigu solution balaa kenn déplacé wu nag na woote ba jot su jotee ñu wax ko naka la ak fan la mu daal di ñëw amee ko ni mu ko bëggee wala ñu yónnee ko ko ba fa mu nekk incha allahu rabbi ndax garab yi mi ngi wër Sénégal gépp réew mi ak bitim réew kon mbokk ñu ngi leen di jaajëfal si kanam tuuti nii nag li ñuy waxtaane mi ngi jëm si kii nga xamante ni mooy docteur Ahmed Lo ak woote bi nga xamante ni woote war na ko foofu si Grand Théâtre ak la ko sababoon loolu lépp incha allahu rabbi daañu si dikk ànd see nga xamante ni mooy Cheikh Maam Khadim waxtaan si bu baax a baax a baax a baax ñu nit incha allahu rabbi eh, gis-gis ñu si amee nag si woote bi moom docteur Ahmed Lo mu ni da doon woote jàmm jàmm nag ci la lépp nekk waaye si biir ay discours am sentir nañ ci ak loo xamante ni laxas na ko ca mooy dëkk bu toll ne Touba mu tudd ka koo jiite nanguut aw si turam tey woote jàmm loolu day xaw a day waar. Eh, tayit ki si des mu tuddee ko borom njoowaan gi kooku moom bu toogee si ak njoowaan wàcc na waaye loolu lépp incha allahu rabbi daañu ko toj eh, Cheikh Maam Xaadim daañu si ànd moom incha allahu rabbi ginnaaw bañ ànd jeeg bitig bu mag bii di bitigu solution ba ñëw si la ñuy dugg ci waxtaan woowu yi ànd si ak Cheikh Maam Xaadim ñu diglu ko bu baax a baax nag incha allahu rabbi ni leen ko waxee woon rek lu ñëw bu ñu si amee xam-xam danañ toog fii wax ci bu buñ ci amul xam-xam danañ woo borom xam-xam bu dee loo xamante ni concerne na réew mi ñu jox askan wi kàddu du leen i kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne nga si sooxi bu jóob bitigu solution ñu dem te mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na ci diggante réew yi ma leen di bëgg a tuddal seen buti solution gën na leen a jege yéen ñi nekk ci biti réew waaw waaw déglul ma li ma la yéen ñi nga xam ni yéenay xaar butik solution ci biti réew ci seen ñetti garab yi ngeen taamu fii ci solution hémorroïde bu tëw a wér ndoxum siti mu tëw a ak góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Dakhla bu dee ca Dubaï dayra ngeen mën faa fekk produit yi boutique solution di jaay di nga mën a jot soxna ummi soo wootee appel normal boo ko jutul bàyyil ko message WhatsApp bépp produit bu ñuy jaay fii ci boutique solution ci Sénégal man ngeen koo am ci réew yi ma leen tuddal bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Dakhla bu dee ca Dubaï dayra da ngeen fa fekk produit boutique solution Alaaji Sanjoogu Mbeng Sohaay bu Jóob mi ñëw ngir régler situation yi jaaxle ci yónnee fii ci Sénégal yéen ñi doon jaaxle ci diggante GP mbokk yi mbaa fàttewu leen garab yi ñuy jaay soo ci bëggee am yu wóor yu leer naññ da ngay doxantu ba solution jàmbat hémorroïde bu mënta weer jeex na ndoxum siti mu mënta wér jeex na góor guy gaaw a yegg ci kaw lal jeex na ak seen boutique solution bu leen ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul listaxaarul seetul su ngeen bëggee digg dëgg daal fii rek ngeen di wéree nañ la bàyyi nga daal di nuyoo kon Cheikh Maam Khadim ñu dugg ci waxtaan wi incha allah. sëñ Assane comme waxtu bi dafay xat. Mhm. ñu ngi nuyu ñëpp. Mhm. Euh, di ziare ñëpp di jiital ci nuyoo bi xalifatul muslimin yi nga xam ni ñooy xulafa ur-raasidin yu mat sëkk. Mhm. ci réew mi lu mel ni Muridiya Tijaaniya Xaadiriya ak mboolem ñoo xam ni rek tënku nañu ci. Euh, suufiyanke gi ñu ngi leen nuyu di leen ziar ak mboolem ñoo xam ne it tënkuwun ci di leen nuyu di leen ziar ak bépp jullit bépp chrétien bépp koo xam ni sax gëmoo dara waaye mi deefu yàlla nga di beral nuyoo nag sa jëmm ji ak jëmmi Sohaybu ak jëmmi ñi ñuy déglu ak jëmmi soppee GCB yi nga xam ni gis naa ni abona bi mu ngi gën a bari waaye ñu ngi sàkk million bi mat rek ci aat bi wasalaam jërëjëf Cheikh Maam Khadim amin si ñaan yu am solo yooyu yi nga xamante ni ñaan nga ko. kon ni ma ko waxee si waxtaan wi rek kii nga xamante ni mooy docteur Ahmed Lo dafa woote woon fële sa Grand Théâtre la sabab woote ba. ak mhm. woote ba ak lam wax ca bisu woote ba. Mhm. loolu rek la ñuy waxtaanee muy presque ñetti point yooyu. Mhm. après beneen émission bi ñu dugg si téeréem boobu mu naan ak lal lalu ci te ñu bëri ni ak ngaj da saa lalu. waaw sëñ Assane euh, waxtaan wi ñun ñëpp déglu lañ ko. mais ñi doon waxtaan ñooy ñan ak ki doon waxtaan mooy kan ak ñin fi nekkal ñooy ñan ak kin fi nekkal seen kilifa mooy kan yooyu yëpp amoon na solo waaye waxtu wi. Hmm. day xat. ah kon ñoom docteur dañoo am kilifa. waa am nañu kilifa ñëpp xam nañu seen kilifa. Hmm. Euh, muy koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci lislaam tamit. kan la. ñoo ngi koy gën miin ci taqiyu diin ci yenn pays arab yi ñi miin ko ci abul abbas ñi miin ko ci ahmed ibnu sahab waaye bu nu boolee lépp rek mën naa wax kooku mooy kan da danaan la taqiyu diini abul abbasi ahmed ibnu sahab diini abil mahasin abdul halim ibnul majdi diin abil barakaat abdusalaam ibnu abi mohammed abdullahi ibnu alxaasim alxadri mohammed alxudari ibnu ibrahima ibnu aliyin ibnu abdillahi alxaraani ibnu taymiya waaw kooku xanaa ponkal la de ponkal la ndax euh, day koo xam ni ndeyam daa am xam-xam baayam am xam-xam hmm. ndeyam mu ngi tudd sittu niam di doomi Abdurrahman ibnu aliin muy ku siiw ku xam juddu atum 716 jigéen la woon ju sell ju daan tuubal yàlla bari xam-xam sa doomam baayam sa doomam ñuy alxanbaliya moom mu ngi juddu dëkk bu ñuy wax xaraar moo tax xaraaniya la ca dimanche muy jëmm joo xam ni nag xam-xamam yóbbee na ko tëj nañ ko kaso lu ëpp trente fois. Hmm. moom Ibnu Taymiya hmm. ci ay ate wuute yoo xam ni muy dimanche gi nga xam ni gàddaay na dem fa tëj nañ ko fa lu ëpp fanweeri at ba ci diggante dimanche ak Cham jafe-jafe yi na amoon yëpp ci moom la jaar. daa judd ci nguur di buur am xam-xam di dawal royaume bi di dawal tamit diine ji ba ni nga xamante ni dox bi ñëw na ba ci Muhammad ibnu Abil Wahab moom it mu jubóog imaamu Saoudia ñi yor nguur gi ñi yor imaama gi ñoom xam nañ ni ibnu Taymiya tëj nañ ko kaso fanweeri yoon te li ko waral rek mooy wuute loolu moo sabab ñoom ci seen jëmmi bopp ñu jubóog buur yi atte yi buur yi bëgg ñoom ñu koy doxal mooy teeŋeel ba kenn du am kilifa ku dul buur bi ñëpp buur bi doon seen kilifa ngir dëkk bi mën a stable boo xoolee senegal loolu lañ bëgg waaye yàlla bu ko yàlla dogal ñu dugg ci jëmm ji nag jëmm ji ci xàqiida bi mu dugg xaqida boobu boo demee ci seen téere bi nga xam ni euh, tàmbali bi da ngay gis sax dañ ci bind ana wahabiya ca tàmbali ba boo demee dañ lay wax ni la mhm. waxu ibnu taymiya la kulla man yuxaalifanii kaafirun dammuhu wa maaluhu wa irduhu xalaalun dañuy wax ni képp ku wuuteeg ñun wahabiya yi yéefar nga sa deret sa alal sa der dagan na lu ci waaye def dagan na lii mooy fikra bi nga xam ni moo njëkk léegi nag boo xoolee docteur mu ngi tudd moom Ahmadu baayam tudd Ahmadu maamam tudd Ahmadu ci leen gërëm tudd Ahmadu ki koy liggéeyloo tudd Ahmadu. de war naa jug. Mhm. Ahmadou moomu moom la ñuy wax Modou Lo sëriñ Serigne Modou Lo Issa yar joxoon ko Cerno muy rakki sëñ Masamba soxna Issa mi ko meññ Lat Joor a ko yoroon Lat am na ci doom moo tudd Mor Issa la waral sëñ Modou Lo Issa gane ci àddina sëñ Ibrahima gane ci àddina sëñ ma sàmba gane ci àddina ci waral cool yi la mooy Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba moo wax la joor ni ko soxna si waggam buur dootu ci wàcc wàlliw moo ci wàcc moo tax nga toog doo amateeg moom doom la joor ni Mamor Anta Sali lii sa doom ji wax su leerul ah dana jëflanteeg moom la joor bàyyi ko mu jël ko jox ko waajuram bu góor te boobu sëriñ bi ndaw la bam mu ko joxee waajuram bu góor mu am ci sëriñ ma ba bam ci am sëñ sàmba fekku ci waajuram sëñ Touba yeey leen waajuram jóge fi mu jox ko waajuru waajuru sëñ sëñ bii tey muy seex naa Ahmad Lo ñu jox ko maamam daam xuja jabu moom gaydel sira xuja kumba yoloo xuja kumba faaloo xuja kumba bi ko ko joxee ci ndigali sëñ Touba mu am ci sëñ Modou Lo Issa mu am ko ci moom kon moom sëñ Touba ko sos. ci lañ am sëñ Ibrahima Lo mu am sëñ Abdou mu am ci Ibrahima Khalil Lo ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay bokk ak sëñ Massamba Ndey bokk ak Mor ma nga xam ni mooy doomu Lat benn ndey kon Mor Issa maamam la. Mm-hmm. man ci seen daara laa génne. Hmm. boo gisee nag moom Ahmadou lu ko waay mën a waxalit it ku sell la ku bari xam-xam la waaye jamono moo toll foo xam ne boo yàggee dem ci pays araab yi ba ci tax diisul asxaas boobu du lu mu bind ci loxol boppam te ji yow mii sëñ Assane. Hmm. soo demee ci pays araab yi. Hmm. yow lañ lay woowe mooy naaxis na ndax si yàlla mooy ñoo xam ni seen jëmmi bopp der bu ñuul bi nu am moo tax handicapé lañ loolu la arab yi mosoo dund léegi nag soo ñëwee téere yu nu bind ci naxsiya yooyu muy der bu ñuul bi képp ku ci am wilaaya wala nga am xam-xam nangu luñ la ko soo demee signé nangu ni téere bii kat nangu naa ko engagé man dañ lay fay million yu bari. Hmm? boo nangoo ni bëgg bokk ci seen xidma lan mooy seen xidma asan hmm. mooy dañ lay gëmal ni la. Hmm. ba ci docteur Ibrahima wax na ko donte du docteur Ahmad mooy docteur moom gànnaar la jànge wax nañ ni la sa digg yàlla jaam boo fa mën a taxawal sa nawle la ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sa nawle la. léegi ñu ni la képp ku la ni mooy dox sa digganteeg sa borom ëpplewu la fa dara fikra boobu nag mooy bi wahabiya mooy fikratu salafiste yi loolu ñu leen gëmal nag boo demee ba ci bis bi keroog grand théâtre hmm. da ngay gis ni loolu amul hmm. benn ahmadou ñoo ngi koy woowe cheikhina hmm. léegi moom ahmadou bi muy dugg ñoo ngi koy màggale baat boo xam ni kenn rek lañ koy màggale. Hmm. muy yàlla. Hmm. mooy lan allahu akbar. bi muy dugg ci grand théâtre. bi muy dugg ci grand hmm. nit ñi ñu ngi firti firti ba mel ni yonent bi la ñu gis. lu waral loolu ndax moom Ahmadou mursal la ci ñoom. Ah, léegi moom nangu na ni mursal la ci moom ñoom nangu nañ ni seexi naa la nangu nañ ni ñoo ngi koy màggale allahu akbar ndax day yàlla. wala daa yegg ci yàlla wala daa yàgg joog yàlla wala day dox ndigalu yàlla wala lan la. Mm-hmm. léegi foofu ndax dugaluñ fa sirk mm-hmm. ndax asraar la walla akabaar la ñun sunu sëriñ si ñuy wax suufi yi mm-hmm. ci li ma remarqué laa lay wax bu ñuy dugg si ñun dañuy yuuxu naan jërëjëfe sëñ Tuubaa waaw lu tax ñu naan jërëjëfe sëñ Tuubaa ndax yàlla moo ko ni jërëjëf hmm. shakara rabbi wa rabbi shakara yàlla nee na ma jërëjëf hmm. nee naa ko jërëjëf moo tax jaam di ma wax jëf hmm. léegi beneen point bi boo duggee foofu nga xam ne ñoom li doon tere mooy am kilifa am nañ ko te du yàgg dara li doon tere mooy dajale dajale góor ak dajale góor ak jigéen ak mbëri làmb yi ma ne ko dajale góor ak góor ak jigéen dajale mbëri làmb yi ak góor ñeeg jigéen ñeeg yooyu daal avant avant foofu di dugg mooy fikre bi li mu laaj laa lay wax. si bis bi. waaw fikre bi. li mm-hmm. mu laaj laa la wax dafa laaj ni kenn mënta dox sa digg sa borom. sa mm-hmm. digg yàlla ba ci yonent bi koo fa taxawal jaam la ni yow sa nawle la. Mm-hmm. comme li Sëñ Tuubaa woote woon ni ñëw leen ma àggale leen ci yàlla. xamal ma la. waaw waaw loolu dañ ko xaw waxoon ni. amara nii rabbi bi an usarrixa bi anna nii malaadun wa mafzaa dalika fadlullahi yuutihi man yasaa wa qaala li xul bii lu zi li sëñ Tuubaa ne woon yàlla moo ma digal ni ma sama digg ak yaa ciy dox nanu aju ci yow yaay wéeruwaay bi nga xam ni ku wéeru ci yow raw yaay làqukaay bi nga xam ni ku làqu ci yow yow mu ni loolu ngëneelal yàlla la mooy seet ku ko soob mu jox ko ko maa ko soob mu jox ma ko yàlla moo ni ma ahmadu neel jaami xul bii lu zi nañu aju ci yow léegi ñoom nag loolu lan ni loolu amul sa moroomu jaam boo taxaw sa kanamu sa borom kooku sa nawle la ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te Ahmadu moom bi muy dugg ñoo ngi koy wax baatu seexinaa hmm. te boo nee seexinaa rek nee nga wa wasilatinaa hmm. koo d'accord ni rek sab cheikh la nangu nga ni sab sëriñ la hmm. kon foofu ñoom seen image tontu na Amar Sall kay wax na ko nee na mooy sunu sëriñ. waa kay. Amar Sall léegi nag loolu laa lay wax man la beneen bi mooy Ahmadou bi muy dugg. Hmm. dañoo njëkk a xamle kan mooy Ahmadou. Hmm. tudd ay maamam ba ci sugu moomu doon koo wax am na ci njuumte yu bari. Hmm. ndax daa wax ni sëñ Modou Lo mu ngi jóge woon euh, euh, ca Jolof. indi sëñ Tuubaa. gaali njaarim hmm. gànnaar la xewe woon hmm, moom baayam moom ahmadu sëñ tubaa ko yónni mu yanul ko gaal gi ni ko bu gaal gi laal suuf bi mu egsi ci yoon wi boori xumaag jam nañ ko xeej ci biir bi mu takk ko ñu ko doon agressé ni rus naa tëdd fii ba gaal sëñ tubaa yi di daanu ca la àgg ci sëñ tubaa hmm. sëñ bi moo ko yennil boppam li ma la wax nag lu ma maîtriser la nee naa la dama dund ak ñoom xam famille bi sëñ bi ci jëm boppam moo koy moo ko yenn bi mu ko mhm. yennee yenni bàyyi Ahmadou loo mii jiite wahaabi yi xamal ko ni mhm. loo bëgg wax ma ko àdduna ak alaaxira ma defal la ko allahu akbar mu ni ko jaam ñëpp ñi aju ci yow texe mu ni ko ba ma ko yàlla di defal ganeegoo àdduna ca la ko sëñ Tuubaa waxoon nag naa la bul sama yëfi bopp loolu nag ci biir loo yéen gi am na fa ixtilaaf xam nga ko sant loo hmm. dafa muus suñ Cheikh Gaynde Fatma dafa daan wax ni hmm. ku sant loo ku sant hmm. bu nelawee rek ngay tolloog moom xel sëñ Cheikh Gaynde ko daan wax bu rek ngay tolloog moom xel fi nii nii mbiru Ahmadou mi xel mi ci lalu dafa yéeme mooy bi mu ñëwee wax nañu koy maamam wax moom mooy kan wax nañu baayam wax ni mu demee ak sëñ tubaa waaye seetlul bi ñuy wax diggam ak sëñ tubaa ba àgg fi nga xam ni àgg nañ ci ci gànnaar gi ak kaamil bi Ahmadou donn di jox ko ko dafa dafa jëge di gaay di uxu di daanu ko muriti hmm, waaw waaw waaw mais est-ce que ay murit man waaw moom laa lay wax gars yi dañuy gis ñu daanu. Hmm. comme murit te loolu ñoom dañ ko dañ ko inkaaroon. ku ko def sax dañ la daan takfiir. Hmm. beneen bi si des mooy Ahmadu ci boppam moom mi woote. Hmm. wootewul bis boo xam ni bisu yàlla la. Ahmadu dafa woote bis boo xam ni dafa am ñu mu joteel ci ay mbokkam. ay mbokkam nee na ñi dañ koy génne. moom mu woo nga xam ni moo leen yilif fu ay nekk fu ñu mën a ne ci àddina ñëw nañu ngir teewe woote ahmadu boobu woote boobu daawa boobu laaj naa ahmadu daawatul xaq la wala daawatul xujjati la daawa dëgg la wala lay lay loo la hmm. te ñoom ñoo wax ni gàmmu rek woote ko daa araam muy bisu yenent bi hmm. te moom wootewul gàmmu bis bu muy seetal boppam di leeral ay mbiram la woote ak di bañ ñu sonal ko hmm? <laughs> ñu caxat bañ ñu caxat caxatee ko waaw bañ ñu caxat caxatee ko moom loolu la woote beneen bi ci biir waxam ñoom nee nañu dañuy leeral diine. Hmm. nee nañu yàlla nee na yonent bi nee na loolee la ni bañ ku ko wax Touba. Hmm. Touba yàlla nee na moo ko sos. yonent bi nee na moo ko sos dafa am nag loo xam ni moom la ñuy bañ te faaw mu am. Hmm. sëñ Tuubaa daa waxoon ni fuxtu si mm-hmm. ku dul man maa la gën a kawe. bi xitaabil baax yi nag la wax. Mm-hmm. ci waxante gi may waxanteeg yàlla yemuma cee kenn ci kaw suuf. Mm-hmm. jëmmi suñ Tuubaa jooju nag moo leen reggal ñoom ñii tey waaye dañuy bañantu. wallaay ndeysaan ñu génnu xeet. waa dañuy bañantu. kii de moom si askan wu riis la bokk moom ni nga ko waxee nii. déedéet Ahmadou sax même moom. Hmm. ku sell ku baax la. waaye communication bi daal contrat boo xam ni communication bi daal la koy bëri. ma ni communication bi ndax bu dee wax Touba si communication damay dégg mu ni Touba kilifa ga fa nekk ba léegi tudd euh, euh, Serigne Mountakha te tey jii boo nee kilifa ak bu tuddoon mun Mountakha am na nu muy waxee moom rek jàmm ji muy woote day daal di dañ koy daal di affiché ñu kii kat bëgg na jàmm. mais ni mu waxee noonu pour jàmm ji daal di am day jafe. Hmm? léegi léegi dama lay wax leen. Hmm. nga ñun Touba. bis bu ñu fexee hmm. ba daawatul wahabiya bii hmm. am fa doole hmm. jumaa ji dinañ woote liggéey duñu gis kenn dëkk ba dinañ woote liggéey duñ gis kenn mais kii de pare na dinañ ma jàll ñuy fayee courant jumaa ji dëkk bi kii de dina liggéeyloo ñi ndax cotiser nañ dañoo cotiser fay grand théâtre fay télé yeeg yooyu ñu ngi ñu ngi def li gars daan def de waa dama la affaire bi del xool fa muy mujj ñoom ñooy dem ba gis ni liñ ñu woote woon li taxoon ñu def daawa bi. Hmm. ñun loolu ñoo ngi ci te yëguñu ko. Hmm. mooy waxum laa yesoonoon gi alxuraan di wax yàlla daal loolu mu naan gars yi dañuy def te duñu yëg ni ñoo ngi def ñoo ngi ci biir kàmb hmm. ñoom dañuy dugg ci kàmb gi te duñu yëg ñoo ngi ci kàmb gi. parce que xam nga mooy lan ñun mooy diine joo xam ne dañuy woote ñàkk kilifa. Ah. tey Assane demal Màkka. tey boo demee Màkka. ci saoudia yi ni ñu yilifee euh, euh, arabi saoudi hmm. xoolal taxawal nga ni yow sërif nga wala sërif moo ngi am ba tey wala sëtu yenente bi moo ngi am ci kaw suuf dañ lay rey hmm. parce que nangootuñu kenn yilif dara moo tax ñu rey lool mais comprendre nga xam naa yenente bi salaay hmm. sa nawle lay doon léegi nag soo gisee Ahmad ci discours bi mu def waaw wuu da xam ni def na communication dëgg parce que tey nit ñi ñoo ngi koy tàmbalee yërëm waaw li mu wax fii gars yi dañ ko war a bàyyi yàlla lay doxal nangam nangam soo li bari lool. Hmm. tey sëñ Mountakha. Hmm. ñëpp xam na ni ci xam-xam. Hmm. yemu kenn ci kaw suuf. ndeysaan. waaye bu la sëñ Tuubaa defaree ba pare. dootoo nawati xam-xam yar ak teggin ngay naw. ñoom nag loolu mooy doon li manqué ci seenub liggéey. mbir moo xam ni. boo dëkkee Touba di nga fexe ba kenn du sukkalati kenn kenn du raamalati kenn kenn du joxati kenn addi kenn du liggéeyalati yàlla kenn dootul jëfal yàlla lu dul yor sa làmmiñ di wax hmm. ana lan la wax tabax ci mim réew Zahir sax wax tabaxu ci dara hmm. maanaam xam nga li ñuy wax raba an mansour hmm. mooy pënd boo xamante nii day dem ba wuri rek woote bi noonu lay mujjee boo laajee mag ñi nag dinañ la ni am na ñu ko fi njëkkoon a woote waaye foofu lay mujj. man nag li ma d'accord sama xalaat boo ma mayee ma wax ko. Ah. sama xalaat mooy. Hmm. ñun taalibi Sëñ Tuubaa hmm. ñun de kenn ku ci ne ci ñun. ci hmm. la yilif ci yoonu murit. mën ngaa sax am lanteeg moom. waaye doo am lanteeg Sëñ Tuubaa. mën ngaa jippi ku ne. waaye jippi wuñu Sëñ Tuubaa. mën nañoo bàyyi ku ne. waaye bàyyiwuñu wuñu tuuba bu ñuy wut ixsaan gu mat hmm. ak imaan gu mat hmm. ak islaam gu mat hmm. mënuñu ko am ci ko ëpp sëñ Tuubaa ñii di woote lii seeni maam sëriñ Bàmba moo leen duyaloon moom mii de waajuramu góor way naa ko way yu bari man mii di xaatim am na solo seex bi way naa ko way yu bari day waar laa rek moom Ahmadu mii waajuram way naa ko way yu bari macha allah mais Cheikh jàmbaar gu mu jàmbaaruñ ci Sëñ Tuubaa. Mhm. léegi nag su ko defee ñoom li ñuy woote seen pas-pas. Mhm. ñun bu nu laal seen jëmm bu nu laal seen pas-pas. Mhm. waaye bu ñu naree laal nag ah su boobaa nag la yàlla waxoon yenente bi. bul jóg song kenn waaye nag ku la song nga jàkkaarloog moom. nga jàkkaarloog moom. beneen bi mooy. ñun. ñu delluwaat ginnaaw jàng téere Sëriñ Tuubaa ndax moom dégg naa ci waxam mu wax lu am solo. Hmm. mu ni gàmm yi. Hmm. boo gisee sax xaraam gi gën a taxaw. Hmm. mooy bu nu tàntee ba noppi. duñ fa wax sax yeneen bi ba mu jeex. politiciens yi ñëw nañ programme yi ñëw yooyu nag dooni sa noonu ko wax. mais da nga ciy jàngat. danga ciy jàngat. ñu gën a sellal gàmm yi. gën a sellal daje yi. ba ñii duñ ñu jam ndax ñii kat ñi nga leen gisee nii. waaye ñoom ñu am doole la ñu. xam naa ne ñoom ginnaaw yàlla dogal na fekk si nañ ñu léegi ñu ngi ñëw mbëri làmb yeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp a ngi jaxasoo kon léegi fekk si nañ ñu ñun nag kon nañ àndale fexee jubbanti xam naa téere bi incha allahu rabbi ajjuma dinañ ñëw dugg si téereem boobu mu bind te gaa yu bëri ni dasaa laxas loo xamante ni bokk ca te nee nga moom doongu bind ko loolu incha allahu rabbi ajjuma dana leer bu soobee yàlla loolu mën naa bu soobee yàlla buñ ci àggee mhm. danaa la indil ñi ko ñi ko bind bu baax a baax incha allah kon waaw ak ñi nga xam ni ñoo ko séq. ñu lay sant bu baax di la gërëm. Euh, Assane gàtt na waaye bëggoon naa. lu neex du doy lu am solo du doy. <laughs> ndax maa ngi téem benn téere xisaadul wahabiyatil jihadiyati. ajjuma joxe gaay rendez-vous ba ajjuma incha allah. waaw incha allah ba ajjuma incha allah ñu ngi leen jox rendez-vous. jërëjëf seex bi. jërëjëf. ngi noonu mbokk yi ñu ngi koy jëfal bu baax seex Maam Khadim ñoo ko déggandoo xam naa ni kàddu yi am na solo euh, liñ si jublu rek mooy ñu xam. te yaakaar naa ne ku diglu da nga daal di xam euh, émission bu mag bii nag ki leen si doon gunge mooy bitigu solution nekk à face wal fajiri mi ngi ñetti médicaments yoo médicaments yoo xamante ni yu am solo la muy siiti émiride ak kartan bu si waay bëgg rek boo wootee ba jot nañ la wax naka la ak fan la ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen gërëm di leen wax ba suba incha allahu bi ndeem soob na yàlla jërë ngeen jëf mbokk yi.